بسم الإله المؤلهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمولها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قد رم قلبي بالاختداء له سكوري بلا كفوري وهو نسيري منه فداء له اقترابي بلا اقترابي له خطابي ما اهتداء لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع اعتداء يا من سفاني يا من حماني عمن جفاني بمهوداي أسبل ستوري أصلح أموري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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yépp yi ci géejawaay mu ngi leen di nuyu nuyoo bi gëna a sakkan di nuyoo bi boole jullit yépp deen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi tàmbali kàddu yi ci tuubal yàlla sunu boroom ci liñ ko tooñ lépp di ñaan mu jéggal nu ko di ñaan it mu dolli nu wér ak tawféex ba nu gën a jekku ndigalam yi di ñaan mu def salaatu ak salaamu ci ngën gi mbindéef sayyidina wa mawlaana muhammad yal na yàlla julli ci moom te sërmal ci moom dolle yeesal sunu njébbal sunu yaakaar sunu kóolutéef ci jàmbaar yi yanantu bi buntam liggéeykatam bu kawe ba mawlaana Cheikh Ahmad Bamba xadimu rasulillahi alayhi salaatu wasalaam yàlla na nu yàlla defal tawféex ba nu jekku ay ndigalam te dawi tereem ba nu nekk dëgg dëgg taalibeem te di ñaan sunu boroom mu dolli ñu ko gërëmal di ñaanit cheikhul xaddim minu yaakaar yàlla nañu dollee gërëmal maam cheikh ibrahima fal baabul muridin mi nga xam ni ku nekk am na loo ko amel ci yoon wi ngir wane na melowu tax ku jug di ci jaar ngir mën a jariñu ci yoon yàlla nañ ko yàlla fayal ki tooge jataayu sëriñ Touba di a cheikh sidil muxtar mbakke alxalifatul am nu ngi ñaan yàlla mu dolli ko yàggal ci sunu kanam te dolli ko wér ba naal yépp mu matal ko ni mu ko bëggee ci barke Cheikhul Khadim nu ngi nuyu bu baax daayira bii di miftaahu saada ñun ñépp a soxla ak texe kon caabi yi ubbi texe yàlla nañ ko yàlla boole defal ci barkeb liggéey bu rafet bii ngeen di def di jël nuyoo teg ko ci seen jëwriñ bale di sëñ Medoune Ndiaye ngir sama kóllëranteeg moom moo dox ba tàbbal ma ci seen liggéey bi di nuyu nag mboolem boroom xam-xam yi fi teew di leen jox wàccuwaay bi leen yàlla jox sunu xarit a ngi nii sëriñ Jili Abdul Xaadir sàmm ku nekk xam xam-xamam bu rafet ak maandoom ak yaram ak tegginam muy nit ku baax di sama kóllëre lool nga xam ni dafa may bëgge lool ma koy bëgge lool maa ngi am mbégte ci toog ak moom ci benn jataay di ñaan ci barkeb turandoom yàlla na fanam gudd lool te mu ànd ak wér te yàlla bàyyi ko ak baatam ba fépp fu ñu soxlaa borom xam-xam mu taxaw fa taxawal fa yoon bi yàlla na ko fa yàlla yóbbu te bu mu am benn ndox nu ngi ñaanal bu baax sëriñ Abdou Ndiaye moom it li nu wax ci sëñ Abdul Xaadir valable na ci moom nit ku baax la di ndonga tarbiyab sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw nag ku mu yor ba noppi ci yow ku nekk xam na ni borom tànneef nga tey jikko yu ñu gërëm rek ngay am te loolu mu ngi ci mu ngi taxaw yoon wi lépp lu ñu yëkkati dugal ci sëñ saaliw gis naa taxawaay bi muy def ngir jikko yu rafet yi mu def ci moom yàlla na yàlla yàggal taxawaayam sëriñ buub miit nu ngi koy siyaar bu baax muy ku yàlla baaxal di sunu xarit moom it di borom xam-xam bu mag di def débat yu am solo yu relevé ci yoon wi di intellectuel bu mag nu ngi koy siyaar bu baax dafa am image boo xam ne su ma ko gisee parfois ci Facebook damay bég lool bi ñuy ñu ngi commentaire naan xoolal waayu sëñ Tuubaa ni koy yare dafa yaru am teggin mu ngi taxaw ak benn takk der mu mel ni lu koy téye waaye ci mokk geeg yar bi muy waxeek moom maa ngi koy seetaan bis ci Facebook ma bëgg ci loolu muy nit ku baax a baax a baax di nuyu ko mel ni ñoom Serigne xaadim kase moom it di oustaz bu mag di borom xam-xam di sama kóllëre bëgg ma lool ma bëgg ko lool di nuyu mbooleem borom xam-xam yi fi teew ku ma ci nuyuwul na nga xam ni sama xol nuyu ne la xam naa damaa ñàkk ràññee rek ak ñàkk la séen waaye jox naa ñëpp seen wàccuwaay télévision bii ñëw tamit di Bichri TV maa ngi leen di ziar ndax maa ngi ñoom am nañu liggéey bu kawe def naa ci télévision bi vingt cinq émission ak ñoom nga xam bi ma ñëwee Amérique dañuy ñëw jënd caméra bi ni ma foo nekk ñu fekk la fa ci mag yi ñi toppoon sëñ Touba la ñu bëgg ko ne nga def ci moom waxtaan muy télé boo xam ni ma jama mbaye ko moom ca Denver ca Amérique di sama kóllëre di siyaar sëñ Modou Fall ak sëñ moor Ñang bu baax a baax ngeen tànn nag mawdo bu am solo muy waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin waaw man huwa kooku mooy kan maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin maam Cheikh Ibrahima Fall dafa bokk ci ñooñu alquran di wax ni minal muminina rijaalun yàlla am na ay jaam yoo xam ni ay nitu yàlla lañ yoo xam ni saddaqu ma ahadullah alayhi dëggal nañu la yàlla dige woon ak ñoom fa minhum man xadaa nahbahu waaye wa minhum man yantazir wa ma baddaloo tabdila sootu laxzaab dane yàlla am na ci jaamam ñi ñu nekk ay góor yàlla piir yoo xam ne yow ma alastu bi rabbikum bi mu sàkkee ruu yi juug leen ni leen ndax duma seen boroom ñu ne ko ankay sunu boroom nga diggaaleeg yàlla ci dañuy bu ñu wàccee ci suuf ñu jaar ci ak njub la ñu waxante woon ak yàlla bi nu wàccee trahir ñu sunu boroom dañoo dëggal la ñu waxoon maam Cheikh Ibrahima Fall ca ñooña la bokk ñu dëggaloon ca yow ma alastu ca ësal la mu waxante woon ak yàlla sunu boroom azza wa jalla kan dafa bokk ci ñi ku ñuy wax abu taalibil makki boo demee ci téeréem bu ñuy wax xóotul xulóob muy téere tasawuf bu mag a mag dafa wax ci biir ni minal moominiina rijaalun law saaloo an laa ma saa lan yuqimaha yàlla sàkk na jaam ñoo xam ni bu ñu waxoon yàlla bis pénc na bàyyi bu mu am yàlla rus leen ba du amal bis pénc ngir seen màqaama ci yàlla fi na yàlla sàkk na jaam yoo xam ne bu ñëwoon yàlla bis pénc bi nga waat wax ko ci alquran wax ni kenn mënta fexe ba du am wax ni di nga ñu ci fay suñu taxawoon ni suñu borom bàyyil bis penc yàlla rus leen ba bàyyi bis penc du am maam Cheikh Ibrahima Fall dafa bokk ci ñoom dinaa ci indi ay preuve kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall mooy koo xam ni ci nasabam ci juddoom euh, juddu bu rëy la am ndax li ñuy fonke fii Sénégal ku baax muy juddu bu rëy yàlla mayoon na ko ba mu doyle te loolu bokk na yi ñu tagge laay tamit ndax ci Quraysh yi noobu la woon kon maam seex Ibra Fall noobu la woon bokkoon ci ñoo xam ni mën nañoo falu buur jiite kajoor jépp foofu la bokkoon mu jàng tamit li doomi soxna yépp di jàng ba xam ko ndax jàng na fee ca siin lay kan ba jeexal mboolem téere xam-xam yi fànn yi ni jàng démb li xewoon mooy ku jàng lëwal ba sànni mooy ñaari fànni xam-xam yépp kon nekk nga kaang nekk nga fóore maam Cheikh Ibra Fall nekkoon na kaang nekkoon fóore man alxuraan lool mokkal ko lool xam ko lool mokkaloon langue arabe lool xam ko lool bind ci tamit teg muy jëmm joo xam ni nag dafa jaayanteeg sunu borom ca lësal wax naa ko léegi sunu borom joojee di fi mës di yónni ay yenentoom ku mu yónni nga ñëw matal sa déyal ak moom ba mu mat nga dellu mu koy def ba li ko soob ci ay yenantu di téeméeri junni yenantu ak ñaar fukki junni yenantu ak ñeenti junni yenantu jaar fi ki ci mujj te gën ñépp di sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam kooku bi mu ñëwee dund diiru juróom benn fukki at ak ñett matal ko bi mu waree dem ci lu wér am na lu ko metti lool la na ko metti woon seytaane pexe mi ci moom ak doole ji ci moom su ma ko bàyyeek sama xeet wi ëllëg amaana dina leen yàqal waaye bi mu waxee lii sunu borom xamal na ko ni loolu bu ko toppatoo maa la yónni woon ngay sama ndaw li ngay gën gën ci mbindeef yi sama njub maa ko yoral sama bopp laa tahdi man ahbabta walakinna laa yahdi man yasha la alxuraan waxoon kon yow yoroo njub yow rasulullaay dama laa wooteloo pour jëme ci njub waaye jubal man maa ko yor yàlla man yàlla ku ma neex maa koy jubal ni ma la sàkke woon nga gën ci mbindeef yi nag dinaa sàkkaat mbindeef boo xam ni su ñëwee lépp loo bëggoon sa ginnaaw dina ko yeesal defar ko koy xaadimu rasul kooku su ñëwee lépp loo xam ne nekkoon nga ci moom moo la koy àggaleel ba dara du ci manqué dinaa ko yebal ci jamono joo xam ni képp ku ko liggéeyal di nga texe kooku su ñëwee mooy jor galaatu xaadimu rasuul moom it moo koy saña a wax sëñ Tuubaa rek a ko wax ci nitu yàlla yi kooku su ñëwee nag dina am ku ma koy booleel ngir mu téyel ko li nga xam ni waru koo mën a téyel boppam ndax sëñ Tuubaa li muy raw raw mbindee fi am na loo xam ni mënu ko ci boppam sëñ Tuubaa mën da taxaw naa mindee fi maanaam du ko mën waaye nag faw yàlla yebal koo xam ni mooy ñëw ci ndigal sunu borom ngir wax leen ni fii la ñuy jariñoo kii mooy kuutaayal yanantu bi kii mooy wuutu sunu euh, sunu boroom ci jaam ñi wuutu yanantu bi kii nii lañ koy toppee kooku mooy maam Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibrahima Fall mooy koo xam ni li ñuy wax civilisation ñu koy wax xayte mooy ki ko indi ci kër sëñ Touba ndax laata muy ñëw ci sëñ Touba sëñ Moulay bu sa wax na ko laata muy ñëw ci sëñ Touba amoon na mag ñu gëm sëñ Touba mag ñu jullite mag ñu am xam-xam ñu toppoon sëñ Touba. waaye nag worma yi ñu war a doxale seen digganteeg sëriñ bi ak niñ koy liggéeyale ak niñ koy toppee maam Cheikh Ibra Fall mooy kii ñëw jàngal ko ñëpp loolu mooy li wóor avant muy ñëw xam ngeen ni sëñ Touba moo ngi taxawal yoonu murit ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor loolu dina tontuwaale kii wax temps yi ci média yi naan sëriñ bi fo sosul yoonu murit kooku moom réer rek la def sëñ Touba moo sos yoonu murit ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di bisu aljuma ci weeru koor ñu laylatul xadr ba ci ëllëg si sëriñ Tuubaa jot ndigal wax ni bis niki tey sayyiduna Muhammad saafowante naag man wax ak man tuñ ak tuñ saafaani rasulullahi bi qawlihi rabbi ashaabaka bil himma wala tu rabbihim bi darsin faxat rasulullahi wax naag man tuñ ak tuñ ni ma yow Cheikh Ahmad Bamba yaral sag njaboot ci bis niki tey nañu topp himma mooy am itte ci yàlla bu ñu yemati ci téere kese loolu nag am na murit yu ciy daanu murit dafay jàng ay duma jàng yëf yi liggéey kese la loolu waxi daanukat la yoon wi jàng ci la bokk ndax bu ngeen seetloo ñi njëkk a topp sañ Touba doo ci fekk kenn ku jàngul amu ci koo mës a gis mu topp sañ Touba kaang la bind na bàyyi fi kon jàng mooy layal lenn li xam nga ki jug bër ci démb di wax loo xam tegewul fenn da ko doon jéem a layal di indi ay aayaat di indi ay wax yoo xam di tegi ba bayit te pourtant li muy wax tegewul fenn kon loolu fitna du ko tontu jàng koy tontu kon murit dafay jàng. moo tax mu ni ko waxu ko bu bul yarati sa njaboot ci jàng waxut loolu de faxat li muy firi mooy dong faxat ci araab mooy dong mooy seulement dani ko bul yarati sa njaboot ci jàng kese jàng baax na waaye am na lu ci war a tolliku mooy nañu jàng nag ba xam boole kook am yitte ci yàlla yitte ci topp sa ndigal yitte ci jéem a ñëw ci man kon nañu jàng boole kook itte ci jox seen lépp yàlla duñ ko booleek dara fii la Sëriñ Tuubaa teg yoonu murit ci atu 1882 wala 3 ci Mbàkke Kajoor ci ñaar fukki fan ak euh, juróom-ñaar ci weeru koor dëppoog bisu aljuma ginnaaw bi la ñépp xam li maam Cheikh Ibra Fall doon wax ndax da daan faral di wax ni a doom yàlla tëgg na làmbam bisu aljuma làmb jo xumb bisu gaaw tas bisu dibéer ni tekk ni Ibrahima Thiam mu ne ko faal mu ne ko ndax du ngeen ma laaj bi làmb ji tasee ko daan mu ne ko faal kan moo daan mu ni ko nañ ko bàyyi wax ko du ay teggin waaye bi làmb ji tasee yàlla mi ko tëggoon woo na ma ñetti yoon gërëm ma rasulullahi mi gën ci mbindeef yi woo na ma ñetti yoon gërëm ma xaadimu rasul mi man ci mbindeef yi woo na ma ñetti yoon gërëm ma keroog laa raw bët raw xel kon aljuma ci la yoonu murit sosu moo ni awalu awalu man baaya ni aadama Gueye ki njëkk jaayanteek man mooy sëñ Adama Gueye ki ci ñaareel mooy sëñ Ibrahima Sarr Njaañ defal na ko leeturu gërëm bu ñëpp xam di ko jàng ki leen ñetteel mooy sëriñ Masamba Diop Saam ki leen ñeenteel mooy sëriñ Daam Abdourahman Lo sëñ Tuubaa da koo yónni woon ab yónneen mu jaare ji mbaakol bi mu ñëwee fekk yoon wi ci ginnaawam sosu mu jaayanteeg sëñ Tuubaa ndax gëmoon na ko bu yàgg mooy ñeenteel bi taalibe ki leen juróomeel mooy sëriñ Ahmadou Lamine Gueye Jammooy ki leen juróom benneel mooy sëriñ Ahmadou Ndumbe Xabbaan Mbàkke mi ñëpp xam ki leen juróom ñaareel mooy sëriñ Daaru Asan Njaay ki leen juróom mooy sëriñ Ahmadou Faa Jama Ñang ki leen juróom-ñeenteel mooy alaaji Mbàkke Buso da ko fekkoon muy jàng miraas mook Seydi alaaji Malick ca Ngiij Fall ca Kébémer ki leen fukkeel mooy sëñ Mor Ndiaye Tagaar maam Cheikh Ibra Fall kon bi muy ñëw ñeen fukk la doon kon fekkoon na fi mag ñoo xam ne ñu ngi topp li sëñ Touba daan digle lépp waaye nag war ma ci war a dox sunu digganteek sëriñ bi di civilisation yoonu murit maam Cheikh Ibrahima Fall mooy ki ko tracel yoonu murit ndax alxuraan dafa am nu ñu waxee ci yanantu bi da ngay xool yanantu bi ni ko yàlla warmaale alxuraan boo ko seetee 6236 aaya la moom alxuraan tënku ci cent 114 saar tënku ci 120 nisfu tënku ci 60 isib tënku ci 77439 baat tënku ci 679 143 maska tënku ci 341 128 tomb tënku ci 332 euh, 015 araf bu nu ko seetee noonu mu composé ñeenti yoon képp la yàlla tudd turu rasulullaay ni ko muhammad lu tax loolu te pourtant day tudd yeneen yenent yëpp di leen sàllalu kon yàlla mu njëkk a jàngale worma yenent bi yàlla ëpp lu mu tudd ci alxuraan mooy yenentu yàlla Muusa 136 fois la ko alxuraan tudd téeméer ak fanweer ak juróom benn kii ñaareel yenentu yi ci li ko yàlla tudd ci lim mooy yenentu yàlla Ibrahima alayhi salaam 69 fois la ko alxuraan tudd juróom benn fukk ak juróom-ñeent leen ñetteel mooy yenent bi ñuy wax nuuhin alayhi salaam yàlla tudd na ko 43 fois ñeent fukki yoon ak ñett ki ci topp mooy yenent yàlla yuusufa yàlla tudd na ko 27 fois ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ki ci topp execo la muy yenent yàlla aadama ak isaa boo seetloo ci aali imran inda masala isa indallaahi ka masali aadamin xalaqahu min turabin suma xaala lahu kun fa yakun ñoom ñaar ni mu leen tudde ñoo tolloo lim ku ne 25 fois la la alxuraan tudd ki ci topp di Daawuda vingt fois la ko alxuraan tudd Souleymane douze fois la ko alxuraan tudd Ayuba six fois la ko alxuraan tudd kon bu ñëwee Muhammad tax mu wàcce alxuraan yàlla tudd ko ñeenti yoon kese war ma la ñuy jàngal ñi ci des ñëpp da leen di sàllalu su ma nee la monsieur le ministre xam naa sa tur am déet su ma nee la son excellence xam naa sa tur kon su ma jaarul ci sa tur dama lay jox war ma noonu la yàlla di waxee ak rasulullaay di nga jàng alxuraan saaru ñu wax suuratul faatiha doo ci dégg turam nga song 285 aaya muy baqara alif lam mim zalika kitaab ngay tàmbalee ba keroog ngay jeexal doo dégg turam nga song saaru ñu wax ali imran dawal ba 146e aaya yàlla dooru a tudd Moustapha foofa da nga dégg mu ni wa ma muhammadun illa rasulun xat xalat min qabli i rusulu afa in maata aw xutilan xalabtum ala aqaabikum foofa tudd na ko parce que xaswatul uhud muy xeexu uhud bi mu amee dañu wax ni loolu mooy sababu nuzul bi yenant bi daanu na jullit ñu commencé dellu ginnaaw ci seen pas-pas tiit di reculer yàlla ni leen lu tax ngeen di reculer ñu ni dañoo dégg ne yanant bi daanu na mu ne ah bon su daanoo rek da ngeen di dellu ginnaaw kon li ngeen wax ak yàlla xanaa da dul dëgg yanant bi yanantu la woon comme ñi ko jiitu daa war a faatu ne wa maa muhammadun illaa rasulun xat xalat min xabli i rusulu foofa mu jaar ci turam doo déggaat mu tudd ko ba aali imran jeex mu song nisaa yi du dégg doo dégg turu Moustapha bi nisaa yi mu jël maayda doo ko dégg song lan am doo ko dégg mu dugg ci laxaraaf doo dégg turam mu génn laxaraaf dem lan faal doo ko dégg nga jàng sootu taw ba doo dégg turam nga song yunus doo dégg turam nga jóge fa dugg xóot doo dégg turam nga jàng yuusufa doo ci dégg turu Moustapha ba xóot jeex ba yuusufa jeex ba raxdi jeex ba ibrahima jeex ba hijri jeex ba naxli jeex ba lisraay jeex ba këf fi jeex mariyaama jeex nga song lan bi yaa dugg taaxa dem ci xajji dem ca nóor dugg ca furxaan ba keroog ngay àgg ci laxsaab ngay door a di gàttul booba ko deuxièmal maa kaana muhammad aba ahadi min rijalikum walakin rasulallah foofa yàlla jaar na ci tur wi lu tax war ma la koy jox te mënta ñàkk tudd tur wi ndax dañ koo tuumaal ne yenantu bi lu tax bu bint Jaxs ah, doomu jiit leen mi yor ko di ku ñuy wax Zeyd ibn Haris mu tàqalikoo ak moom yenantu bi yar kii ba noppi mu tàqalikoo ak soxna yenantu bi di ko takk def na lu ñaaw ñëpp di wax loolu ci yenant bi ba tey occidentaux yi di xas lislaam ne yenant bi daa dem takk doomu jiitleem joo xam ni euh, doomam a ko yoroon soxna mu dem di ko jëlaat yàlla ni ko bu ragal critique nit ñi ragal ma man yàlla maa la ci jox ndigal falamaa qadaa zay falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha li kay laa yakuna alal muminina xaraj man maa ko jox ndigal moom Moustapha ngir mu takk soxna sii ngir ñu xam ne ci lislaam ci fiq d'accord nañu doomu jiit la joo jurul ci deret su tàqali ko ak jigéen boo ko bëggee mën ngaa takk te fekk yenentu bi defu ko kenn du ko sañ a def man yàlla maag ko def loo foofa il faut mu leeral ki mu ko loo mu ni Mouhamed du bàyyi kenn ci yéen jaar ci tur wi du ngeen déggaat turu Moustapha mbokk yi ba saar bu ñuy wax sootu Mouhamed mooy sootul xitaal ci beneen appellation foofa yàlla nee na inna lazina amanu wa amilu wa amilu saalihat wa aminu bi ma nuzila ala Mouhamed wal haqu min rabbihim mu ni li ma li ma wàcce ñi gëm yàlla di rafetal seen diine te gëm li ma wàcce ci sama waa ji bu ko waxoon bu jub dañ ñaan sa waajan dañ koy interpréter nu nekk nooyin lay wax wala Ibrahima mu xam ni kon doy na mu wax turu Muhammad mu ni li ma wàcce ci Muhammad laa wax dëgg la ju jóge ci man muy ñett yu mu ko tudd ñeenteel bi sootul fathi foofa moom la tëje dani muhammadun rasulullahi te wallazina maahu ashiddaau ala alkufaar ru'amaa baynahum taraahum rukkaan sujadan yabtaxuuna fadlan min allaahi wa ridwaanan siimaahum fi wujuuhihim min asari sujuud ilaa ali ilaa aaxiri aaya foofa tudd na ko ni Muhammad sama ndaw la maa ko yónni ñi ànd ak moom di ay jullit ñoom dañoo bëggante ci seen biir am yërmande ku ne ci sa moroom waaye ci noonu yàlla yi yéefar yi dañoo tar ci ñoom mel ni ay gaynde fii la ko tudde ñeenti yoon kon war ma jooju boo seetloo ni ko yàlla joxe rasulullaay noonu la ko sëriñ Tuubaa joxe rasulullaay moom rek a ko joxe noonu nag loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax woykat yaa ngi nii yenn saa ñu woy ba dugg ci soxnay rasulullaay doo dégg sëñ Tuubaa dugg foofu yenn saa ñu woy ba wax ni yenant bi position bi mu indi bi muy gane àdduna loolu dafa ëpp sëñ Tuubaa du wax loolu ngir war ma yenn saa ñu woy ba dugg ci yenant bi nan la dikkee lu ne ñu dugg ko ci biir néegam loolu sëñ Tuubaa da ko def ngir war ma ma mawaahibu naafi' sëñ Tuubaa woy na ko ci 166 bayit ba mu jeex dëppalikoog li mu laa ilaha illallah ba mu jeex tàkk antal karimu rek anal xadimu dëxran uddi mu fii ka sanaa yi doo dégg mukk mu tudd tudd rasulaay ngir fa war maa la bi te daf koy woy ba mu yàgg maa ngi ci maam Cheikh Rafal te woy ba mu yàgg mu ni laa qasda abdil lazi xat xaaja min sharafin li anna zalika aya kulla muftakiri fa kayfa yamdahuhu xalqun wa xaaliquhu ajram tidaan lahu fi muhkami suwari te Tuubaa nee na bi may woy rasulullaay jubluwuma ci jéem leen koo xamal déedéet ndax nekkul ku ñuy xamalaate kenn mënu ko xam borom xel yi ñaw yi sax lott nañu ci wax ñu kuy Moustapha mu ni man kay nu may wooyeeti mindéef nu muy wooyeeti jaam boo xam ne yàlla mi sàkk jaam ñi moo ko woyal boppam nu ko mindéef di wooyeeti kon mbokk yi kooki di Seydunaa Muhammad war ma jooju Sëriñ Tuubaa ko joxaat waaye nag sëriñ Touba mi jox war ma rasulaay jox ko yàlla maam Cheikh Ibra Fall mooy ki ko jox war ma jooju loolu laa bëgg murid yëpp xam ko seen bopp luy loolu alxuraan dani damay tere yéen jullit yi bu yenant bi nekkee ci biir néegam ngeen jug dugg ci biir néegam bu fekkee du moo leen wool boppam dama koy tere na fekk mu woo leen te su leen wooyee tam na leen woo ci ñam lekk su ngeen duggee añ leen wala ngeen reer gaaw génn waaye nag bu mu nekk ñam bu tàng ñuy xaar ndab la ndax xaaraay bi ngeen di xaar ci biir néegu Moustapha man naa am ngeen di def lu ñàkk teggin ci wetam te dafa bari kersa du leen ko wax ma ne yàlla nag rusuma wax kenn dëgg dem leen faw yi boo leen añatee kii du seen morom kii dama ko war ma ngay dem ci suutu laxzaab yàlla ni yaayu allazina amanu laa te buyuta nabii illa an yuzana lakum ila taamin gayra na innahu walakin isa duitum fadxulu fa isa taimtum fantasiru waaye nag wala mustaxnisiina li xaddisin ndax inna zalika kaana yuusi nabiya fa yastaxyi minkum waaye wallaahu laa yastaxyi min alxaq kon bëgguma ko dugg di déranger jëmm ji loolu buñ ko amee kër Serigne Touba nee ñu ñëpp ni jërëjëf maam Cheikh Rafaale ko fa andi alxuraan dellu ci hujuraat ni yaayu allazina amanu laa tuqaddimu bayna yaddayi llaahi wa rasulihi wa taqullaha inna allaha samiun alim ee eh, yéen way gëm yàlla yi maa ngi leen di tere ngeen jiitoote yanant bi ak yàlla ci benn décision bu dee décision na ngeen ko xaar déglu ko bu ngeen di dox na ngeen jàll ci ginnaawam bu leen ko jiitu war ma jooju maam Cheikh dafa la ko indi kër sëñ Touba ndax sëñ Touba xam naa ñu ko jiita julli ñu bari ci yoon am na ñu ko jiite julli sëriñ Daaru Assane Ndiaye bokk na ci sëñ Touba julli jot na mu ne Daaru Assane demal nga jiite ma julli sëñ daaru asal xool ko ni ko mbàkke sañuma ko sëñ tuubaa ni ko yàlla nee na nga jiite julli gi sañuma ko sëñ tuubaa ni ko yàlla nee na nga jiite julli gi mu xool ko ni ko ñu ngi tuub mbàkke maam Cheikh Anta ni ko doxal dem waay kii kum ni yawa yawa su doon mbokk ak xaalis may jiite julli gi yow la wax yow la nañu jiite kon sëñ bi julli kon mu ni bu leen jiitee te yanant bi mu dellu wax tam ni bu yanant bi toogee wax seen wax ni ngeen ko wàcc ci kanam Moustapha bu leen wax ci kaw yaa ayyuha allazina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil xawli ka jëri baadikum li baadi an tax taabata amalukum wa antum la tasharu mu ni damay tere ngeen toog ci kanamu rasulullah di yëkkati seen baat muy féete kaw baatam mu ni ñu bari ñuy def loolu dañoo xeluwul ñoom laa yàqiloon xeluwuñu bu ñu xeluwoon du ñu yëkkati mu ko seen baat ci kanamu rasulullah ndax dama koo wormaal man ma juree di civilisation maam Cheikh Rafaal mooy ki ko indil sëñ Touba waaye maam Cheikh Ibra Fall mooy ki sëriñ Touba gënal léppam te fi mu ne nag kenn du murit kenn du murit fekk sëñ Touba gënalu lépp lu mën a dox sa digg sëñ Touba bu amee rek nekk goo murit moom maa la ko wax kenn du murit fekk sëriñ Bamba gënalu la lépp gënal la ñëpp kon ki wane woowu yoon mooy maam Cheikh Ibra Fall sëriñ bi dafa toog. bis mu ni kan mooy dugg ci néeg bi jox ma sama kaamilu alxuraan bi mag ñëpp nga fa toog mun na ma kenn jox kaamil bi ku ne di ko bëgg a njëkkante mu ni ku may jox kaamil bi na yor njàpp nag ku ne dellu ginnaaw a ah, njàppum sëñ Tuubaa dellu ginnaaw maam Cheikh Ibra Fall ni bërët kes kaamil bi ko sëñ Tuubaa bi ne ko Ibrahima Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax dégg nga li ma wax ku yor njàpp rek laa wax mu ne ko bi ma jàppee ci yow laa tàggoog taq àdduna ak alaaxira yow laa jàpp moo tax wax na dëgg yow mi ma jàpp mënatuma jàpp di kon moom dafa dégg sëriñ bi sëriñ bi toog na bis génn wax ñi dañ ma wool sama Moussa mu mag mi sama Moussa mu mag mi ñu dem indi sëñ musaa mi ñu jàpp ni moo fa ëpp ay at mu ñëw sëñ bi xool ko ni sama Moussa mu mag mi laa wax ñu jaaxle dem indi sëñ Moussa Halima Gueye bokkoon na ci bindkatu sëñ Touba yi yi ko manoon alxuraan ci seex yi la bokk ñu woo sëñ Moussa Halima Gueye ne xay na moom la ci jublu sëñ Moussa Halima Gueye ni tëll sëñ Touba xool ko muuñ daa ni hakaza yakun sama Moussa mu mag mi mooy Moussa Alima Gueye ndax waxi sunu borom dafa nekk ci dënnam bi kii mooy sama Moussa bi mu ñëwee sëriñ Touba jox ko ñaari kàggu nee na moom ak sëñ Touba bi ko sëñ bi jox kàggu yooyu benn mbindeef nekku fa benn mbindeef moo sëñ Touba yàlla rek ñoo toog sëñ bi jox ko ñaari kàggu ni ko li ci biir kàggu yii dama la ciy bëgg sant liggéey damaa bëgg nga sottil ma ko ci téere yi ma lay jox këyit yi ma lay jox. waaye diir bi nga koy sotti charte bi mooy sa bët waru cee tege sa bët waru koo gis nga ni loolu yombul mbokk yi sottil ma li ci biir kàggu yi ci këyit yi waaye na ko sotti ba àggal te sa bët bu mu ko xool ndax di nga ko mën mu ne ko mbàkke dinaa ko mën ndax yow doo santaane lu kenn mënul daa di jël kàggu yi fatoog moom liggéey ko ba mu àgg mu dem di ko joxi sëñ Tuuba nee na bi mu ñëwee di ko indil sëriñ bi mu fekk maam Cheikh Ibra Fall doon ziyaare sëñ Touba mu ni est-ce que damaa war a dem présenté ko li ma doon sant wala damaa war a xaar ba mu àggale ndax su ma demee présenter ko li ma sant te sëñ Touba damaa joxoon ndigal ni ma bu kenn yëg liggéey bi nag maa ngi yow ak yàlla rek na yem ci nun kon su ma ñëwee jox ko ko ci kanamu maam Cheikh Ibra Fall maam seex dina ci xam dara kon naa yëglu ba sëñ Touba ni ma ñëwal daal di xaddami ko ci baat bi ñaari yoon sëñ Touba ni ko yaa Moussa aqbil wala taxaf innaka minal aminin moo tax sëñ Tuubaa kenn xamut lu mu doon xam ngeen Moussa bi muy dem ci suñu borom war a rencontré yàlla yàlla dañu ko ñëwal nga jubal jubal dëgmal si ma te bu ragal protégé naa la mën ngaa ñëw noonu la sëñ Tuubaa waxe waat ak Moussa mii dañu ko musaa ñëwal bul tiit protégé naa la sëñ Moussa alima Guèye gàddu liggéey bi ñëw jox ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi jël ko teg ko ci ginnaawam maam Cheikh na Fall siggi fi mu boofoon xool ko ni kooku Moussa Alioune Guèye mu ne ko waawoo Fall mu ne ko doom jàmbaar nga di dangay ngay bind loo xoolul te doo ci juum doo ko yàq xam ni maam Cheikh Rafal communication sëñ Touba moo ko xam ci saa si la sëñ Moussa Alima Gaye ree ni ko yow it yéeme nga di ku la ko wax te kenn yëgalu la ko sëñ bi daal di muuñ waxu ci dara waaye da ngay xam ni communication sëñ Touba maam Cheikh Rafal la ko xam lii ma lay bëgg a wax tam sëriñ sooy bu Mbàkke sama sëriñ moo ko nettali nee na sëriñ Fallou day. sëriñ Touba da koo woo bis ci kër gi fekk na maam seex Rafaal it sëñ Touba woo ko ci kër gu mag gi biñ fa dajee maam seex Ibra Fall a ngi bóof ci mbaar mi di xaar sëñ bi ne ko agsi sëñ Fall lu ñëw sëñ Touba woolu ko ba mu dugg ci biir keesam sëriñ bi jox ko këll këll goo xam ne ginaar la ci def ni ko Mouhamadou Fadal mu ne ko Mbàkke mu ne ko na ngeen na dem ci mbaar mi fekk fa sa bàyyi Cheikh Ibra ngeen ànd xéewlu sëñ Fall gàdd ko. ñëw ba fekk maam Cheikh Ibra Fall fi mu bóof mu ne ko ku tedd ki nee na ñu xéewlu maam Cheikh Ibra Fall ni ko ah xaj du lekkandoog boroomam xaj desit lay lekk te seen xaj laa lekk leen ba jeexal ma door a jël desit sëñ Fallou dellu ni ko nañ xéewloon doom mu ni ko xaj du lekkandoog boroomam xaj desit lay xaar maa ngi lay xaar sa desit sëñ Fallou teg ko ci wetam di barkelu di ko xool ba mu yàgg mu ni ko bàyyi seex mu ni ko mbàkke mu ni ko sa digganteeg sëñ Touba ci laa la bëgg a laaj maam Cheikh Ibra Fall ni ko bisimilah. mu ni ko da ngaa yàgg ak moom lool ma lay laaj diir bi ngeen ànd li muy yàgg-yàgg lan nga gis ci moom léegi loo ci xam loo xamul woon ba ngay jébbalu ci moom mu nekk soppeeku ci moom maam Cheikh bi Fall ni ko bu dee yàlla rekk tax ma lay tontu te yàlla rekk tax ma lay tontu sa baay bii ba ma jébbaloo ci moom ak ren lenn rekk laa gis ci moom lu bees lu ma xamul woon mooy bijaaw bi bijaaw rekk a yokk ci moom waaye ragal gi yàlla ak njub gi xam-xam bi lépp ba tey doon la mel sëñ Fallou eggale xéewal gi jox ko des wi jug dugg ci biir sëñ Tuubaa ni ko ana sa baay Seex ndax xéewlu na mu ne ko dafa wax ni xaj du lekkandoog boroomam xaj desit lay xaar bi ma xéewloo ba noppi laa ko jox desit muy barkelu sëriñ Tuubaa ni cey man ak Ibra Faal ba mu jébbuloo ren de yàgg na lool waaye dara rek moo soppeeku ci moom muy bijjaaw bi waaye pas-pasam dara yokku ci dara wàññi ko ci murit rek la noonu kon murit baa ngoog li li yàq nag te gerte sunu jeunesse bépp yàqal leen fi mu ne lu bari mooy bëgg a wax ni man ab Baay Faal laa maam Seex na Faal laa bëgg doxinam te bëgg cee boole di def lu mu daawul def loolu kenn xamut lu ma doon ndax jeunesse bi ñu ngi tux te loolu kenn du ci roy maam Seex na Faal moom kenn du roy naan damay tux moom jeunesse baa ngi sàcc ñu ngi agressé ñu ngi gees ñu ngi màndi ñu ngi mooy yàlla guddi ak bëccëg te boo leen waxee loo doon ñu ni Baay Faal la gis naa sax yambar muy fecci fecci euh, ak ak ak a wooy wooyu musicien mu taxaw naan Baay Faal la di solu yére kon nag loolu wareef na koo dindi wareef naa leeral ñépp ñu xam ne di doxinu maam Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra Fall yoon wu jub xoccu jëm ci yàlla fi la nekkoon lu sëriñ Tuubaa nekkul woon amu ci wàll lu sëriñ Tuubaa nekkul woon amu ci wàll maam Cheikh Ibra mësuta bëgg lu sëriñ Tuubaa nekkul mësta laal lu sëriñ Tuubaa nekkul mësta jëm ci lu maam lu sëriñ Tuubaa nekkul xaadim rasul sëriñ sooy bu nee na benn weeru koor sëriñ Tuubaa yónnee woolu ko mu ñëw bi mu ñëwee sëñ Tuubaa daa woor waaye mu teg këlluwén di jàpp ndox mi di toq ci biir këll gi ba mu fees mu jox ko maam Cheikh Ibra Fall mu ne ko Cheikh Ibra mu ne ko Mbàkke sëñ sëñ son yi bu ko daan nettali day wax ni lu ma yéem la ci maam seex Ibra Fall ak a yegg da koo jox këllu wen këllu wen la sëriñ Touba jël këll tiimale ci ay tànkam di jàpp ci këll gi ba ndox mi fees sëñ Touba jël ko jox ko ne ko Cheikh Ibra mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu ndogu jotee na nga ko barkeloo maam Cheikh Ibra Fall gàddu ko di dox ak moom gàddu koy dox ak moom ba mu yàgg mu dénk ko sëriñ Yaaram Mbay ni ko yaaram mu ni ko faal mu ni ko téyel ma këll bi ñu ànd dem sañ sëñ ba jox na ma ndoxam sëñ yaaram téye ko ñuy dox mu ni ko jiitul këllu sëñ bàmba ko yor day jiitu mu jiitu mu jiitu ñuy dox ba mu yàgg mu ne yaaram loolu wóorul sax boo ko sàkkalee bexe fu ma jëm xam nga nu ñuy def jàllal ci sama ginnaaw ma jiitu la mu jàll ci ginnaawam maam Cheikh jiitu ba mu yàgg mu ne ah doom loolu wóorul ku yor daray sëriñ Tuubaa kenn waru laa jiitu ñëwal ñu nga doo ñu làng ba mu yàgg mu ni loolu wóorul xam nga nu ñuy def jox ma ndox mi mu jox ko mu àgg suuf ni sëcc daal di koy naan ba mu jeex mu ne waa balaa ndogoo jot ma barkeloo ko benn yoon dafa gëm sëñ Tuubaa jërëjëf ñu ngi siyaar bu baax docteur sëñ Saliou Samb euh, di directeur de publication bu réew mi quotidien di ko baax ma yàgg koo xam lool nag ci euh, daara sëriñ bu jii sëñ Murtala mu sëñ Soyibu fi laa ko daan fi laa ko xamee muy nit ku baax ku ku ku bëgg sëñ Tuuba waaw di ko kennal fu mu toll di borom xam-xam bu rafet di un éminent journaliste ñu koy ziyaare bu baax a baax a baax waaw dangay xool kon pas-pasu maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiin nga xam ni moom lu jóge ci sëñ Touba dama koy wax ci benn tànt ñuy reetaan dafa mësa am ganu saalum saalum maam Cheikh Ibra Fall la mësa am ganuk saalum saalum gan gi ñëw dikkal ko feebar ci kër gi feebar bi yàgg lool mu nar faatu maam Cheikh Ibra Fall sol dàllam ni damay jóg dem waxi ko sëñ Touba ba mu ñëwee ba lijjanti ba gis sëñ bi ni ko mbàkke damaa jaaxle lool sëñ Tuubaa ko lu lu doonoon sa jaaxle mu ne ko damaa am gan muy ab saalum saalum di sama xarit mu ñëw seet si ma def sama kër ayubis tawat dal ko fi fii la ko tawat gi dale te fi mu ne nii tembe suñ ma daboon ni ma faatu na du ma ko weddi mbàkke ma bëggoon nga ñaanal ma yàlla tinul ma yàlla ba bu mu fi faatoo na dellu këram sëñ Tuubaa ko jox ma këll gi ma ñaanal mu jox ko këll ndox sëñ bi ñaan ci lu yàgg daal di tifli ne ko soo demee nag fexe ba jàll ci putam da fexe ba mu jàll ci putam mu naan maam Cheikh gàddu këll gi ñëw ba dëgmal buntu néeg bi gan jàng tëdd ci biir mu ne ah doom kenn wérul na sàkk pexe wala mu dee ñaanu sëñ Bàmba du ma ko jox kenn toog. di toog ci saa si naan lépp waaye sëriñ bi xam gu mu xamoon ni da koy naan moo tax gan gi nee na fi mu tëdd daa am ndox mu jaar ci putam jàll. nga xam ne yéene sëñ Touba ji moom àgg na waaye dañu ñaanu sëñ Touba duma ko jox kenn i toog na sàkk pexe wala mu dee kenn wérul doom waaw kooku mooy maam Cheikh rafal sëñ Touba rek lay xool ci lépp te damay wax ni jumaa jii di jumaay Touba war nañoo yee ñun ñëpp ci seex Ibra ndax ku dul julli la ñëpp maas ñu du julli waa li ñuy defar pour julli mu gën céere yi moom lañ ko tuddee ma ni ku dul julli la ñu wax. li ñu defar di ko jullee muy ndigalu sëñ Touba gën a rëy moom lañ ko tudde te sëriñ Fàllu mi koo tudde moo raw ñëpp ci xam-xam ñëpp moo leen raw kon maam Cheikh Ibra Fall la sëriñ Touba waxoon sëñ Touba daa julli timis lii na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax sëñ bi dafa julli timis nee na bi ma jullee timis ba noppi sawar a ñëw na fi safara nag jaam la rek warta jaaxal kenn sëñ Touba nee na ñëw na fi man ni ma yow cheikhul xaddim de sa yërmande ji wër na ci àdduna bi yëpp ñëpp war cee jariñu xanaa di ma séddee dara man ndax gis naa ni ñëpp yaa ngi leen bëgg a yóbbu àjjana man lu may am te yow doo xa doo xañ kenn doo tas yaakaaru kenn man loo may sédde sëñ Tuubaa ni ko su ma jullee gee ba noppi dinaa la sédde li ma lay sédde bi mu jullee gee mu delsi sëñ bi ni ko sedd naa la ñett ngeen bàyyi ci xel ku ci bokk nga defar sa bopp képp koo xam ne yaa ngi sàllalu maam Mariyaama Buso cëru sawara nga mattum sawara ngay doon ku ko joxul war ma di ko sàllalu ci nga bokk képp koo xam ni xéewalu àdduna yii jay na la wala téere yu ñuul yii nga gëstu ci tuuti jàpp ne xam nga dara ba tax nga may wutal nawle ci nga bokk dañ coobaa ko bañ ko ko nuróoleeg dara la bëggu ko ak képp koo xam ne yaa ngi diingat kii di bunt yoon yi ma gërëm ko mi maam Cheikh Ibra Fall sëñ Tuubaa di koo gërëm maa ngi koy wax léegi sëñ Abdul Xaadir Sàmb xam ngeen ni alaaji bu Buso kenn la ci sëñ Tuubaa yéen ma ko gën a xam ndax alaaji Malik moo ni Seydi alaaji maalik bu Tiwaawan moo ni man day li ma xam ci sëñ Tuubaa bariwul sax waaye su fekkoon daal am na lu may doyloo pour xam ni kenn la damay xool sëñ bu Buso xam ni sëñ Tuubaa kenn la ndax sëñ Mbàkke Buso de jaxasoo nañu ay at di jàngandoo ma yéemu lool ci moom nag ci ragal yàllaam ak xam ak maandoom ma gisaat ko muy raamal sëñ Touba loolu rek moo ma xamal ni sëñ Touba kenn la sëñ Mbàkke bu saat gis naa fu sëñ Touba bind bindum sëñ Touba rek laa wax moo ni fa min nii ilaa man maala qalbi li luqyaahu habibi anisi man radina sajaayaahu sëñ Mbàkke bu solo ci jub fa min nii jóge na ci man sëñ Touba ilaa man jëm ci ki nga xam ni maala jeng na qalbi sama xol li luqyaahu ngir bëgg koo daje ak moom kon sëñ Touba day namm sëñ Mbàkke bu sa fu mu toog la wax ñu ne ko lu tax nga koy namme noonu mbàkke mu ne habib yi mooy sama soppe anis yi mooy sama wéttal mooy ki nga xam radi naa sajaa yaaw gërëm nañu ay jikkoom sëñ mbàkke bu sa mooma nag moo wax ni bett naa sëñ tuubaa timis bett naa sëñ tuubaa waxtu yi tembe sëñ bi toog féete penku ma dégg ci ay kàddoom lu mel ni muy wax naan ibrahima fall di gërëm naa ko moom ibrahima fall di gërëm naa ko moom sëñ mbàkke bu so nee na ma déglu ko ba mu àggal ma raam ba àgg ci moom ni ko moo Mbàkke nan la Ibrahima Fall doxe ak yow ñu doxe noonu ndax nga gërëme ñu nii nee na mu xool ma ni ma alaaji Mbàkke sëñ maam Cheikh Ibra Fall damaa teg fi ma yàlla teg ma teg ko fi ma ko teg kon coow li coow li mooy teg sëñ Touba fa ko yàlla teg dafa teg sëriñ tuubaa fa ko yàlla teg ndax kat ñun ñëpp bari na ci kuy wax mu jullit akkan la ak murit saadix la te am na lu mën a dox sa digganteeg sëriñ bi kon du dëgg mag ñi daaw ñu def noonu sëriñ bay jaxate xam na julli am déet xamul julli xam na koor xam na natt asaka xam na li ñuy def lépp ci ibaadaat doomi maam xaadima jaxate kala la am na gërëmu sëñ Tuuba sëriñ son yi ba moo ni sama sëriñ bala maa gëm ni kenn ko ëpp mbir bis penc daa jot ba ba teg ci bët ma door koo nangu sëñ Maodo Moustapha ci kawam la wàcce liggéey moo ko fob bi muy wàcce liggéey 45 Bay Jaxate sëñ Mbay Jaxate moo bind ci xalimaam wax ni sëriñ bee di saa koor ak sama julli faawu man bu ñuy woor a koy jullee ko wird ma ngëpp ko man te def naa ko muy saa xam-xam ak sama diine it samay solo jàllul Bàmba yem naa ci moo fi gën sama bari man man dootu jëm ci lu dul mbiram lu dul jëm ci moom ak mooy la tag mooy farul dagan damaa lott cig def lott cig bàyyi moo waral ma jébbal ko saa mbir génn ci doya dee ki fen sëñ bi rek a fi nekk gis nga sëñ Mor Talla Fall doomi maam Cheikh Ibra Fall moo nekkoon Kawsara xam ngeen ni Kawsara Kawsara mook si Xuru Mbàkke di ko sëñ Mbay Jaxate dañoo soreewul torop bu guddi jotee waa kër sëñ Mor Talla di tëgg ak di sikkar ndax bàyyi Fall ku ko xamul rek dugg ci mbiram dañuy zikkar ak di tëgg guddi kenn du nelaw téll téll di zikkar rek bis sëñ Mbay Jaxate sol dàllam ñëw ba ci sëñ Mor Talla mu nuyu ko ni ko Fall ñu ngi ziar mu ni ko Jaxate ñu lay ziar bu baax mu ni ko ah njaboot gi de seen yëngu bi moom yéeme na lool guddi gi de bu nu bëggee wéetal suñu borom day yëngu lool ba duñu xam lu ko sabab bi ma laajtee ñun nag sa njaboot ay yëngu ma ne woon naa ñëw wax la ko ñu gën koo wàññee tuuti ndax ñu xam li ñuy sëñ Mor Talla Fall ni ko ay waay njaxate waroo woon a déplacé wu yow ab sang nga daal ni ko maa ngi koy tuub di ko tuubal yàlla mësumaa yëg loolu loolu kañ lay am mu ni ko guddi ko jot sa kër la ñuy tëggee mu ni ko te yëguma ko est-ce que bu subaa dinaa leen ko tere kon mësuma koo dégg yàlla xam na ko sëñ Bay Jaxate jóge fa am xaal ni ndeke sëñ Tuubaa ku mu yar bokkoo kenn kii ndeke liy tëgg ci àdduna yëgatu ko nag ngir communication ak yàlla xamut li xew fii da xool ko ne ci këram ñu fay tëggee kii toll ko 3 kilomètres di ko dégg kii mënu koo dégg sëñ Baye ni nekkete kon man damaa mel ni doxaguma naa jug dox yi ndax kii mën a toog du dégg tëgg bi ma koy dégg kon kii nekkatul ci nit ñi ñooñ ñooy gaa yi sëñ Touba yi mu yar te kooku doomi maam Cheikh Ibra Fall ngeen bàyyi ci xel doomi maam Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall dafa boolewul sëñ Touba ak dara sëñ Touba toog na fukki fan ak juróom yoo xam ne njaarim yépp maase nañu nee nañu kenn gisu ko bi ci jaaxlee ñu laaj ko sëñ Massamba Mbacke mu ni leen man ak yéen ñoo ci tolloo gëj naa koo gis de nañ toog ba gisaat ko nee nañ bi fukki fan yi ak juróom matee xetu sikki gerlin gii xeeñ moo xamal mag ñi ni sëñ Tuubaa ngi génn ak yëngoom bu gaaw bi ñuru sëñ Abdul Xaadir moo tax ñu xam ne mu ngi ñëw mag ñëpp boof sëñ Maalik Njaay jug taxaw daal ni ki ñuy dimbali tey ëllëg mu ngi ñëw yaru leen sëriñ Mbay Sarr ni yàllaa ngi génn na ñëpp toogaat sëñ ma sàmba nañ defar teggi nii ku tedd kaa ngi ñëw bi nu sëggee sëñ bi ni jalañ palaat la yor teg ci cafetière ak ay kaas bi mu ñëwee nuyu leen ni masamba mu ne ko mbàkke mu ne ko lu fere yi wax mu ne ko mbàkke dañ laa namoon gëj laa gis lool sëñ bi ni sant leen yàlla fukki fan yee juróom de fàggul naa leen lu rëy ndax maa ngi woon barzaq di ganale rasulullah ñoom ñëpp ñu jaaxle ci lool sëriñ bi daal ne sàllaaw dama ko doon wargaal sax àgg nañ ci ma koy wargaal di ko jox sama kaas yi muy naan daal ni sàllaaw kaas yi ngeen gis de ci laa doon wargaal rasulullah di ko jox muy naan mag ñi ne est-ce que mu ne xanaa yéen ñii ma topp di samay fere ma jox leen ci kaas yi ngeen barkeelu naan ci kaas bi mu xellee jox kenn kooka dañu ko fuuf ni ko jërëjëf mbàkke mënoon naa dund ba dee duma naan ci kaas bu rasulullah doon naane sa kër rek laa amee lii mbàkke mu xel li jox ka ca topp mu ni fuuf naan ni alhamdulillah bi ma naanee ci kaas bu rasulullah doon naane mu xel li di ko defe mag ñi dab mag ñépp wër na leen mu xelil maam Cheikh Ibra jox ko kaas bi mu ni ko jëyi ci suuf ni ko mbàkke jox ko ñi nga xam ni bu ñu gisoon rasulullaay bàyyi la man doy nga ma àdduna ak àllaaxira ci yow laa yem bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax eh, te di leen siyaar xanaa nuyoo beeg siyaar bi rek dañu koy teg ci loxob ñi nga xam ne ñoo woote jataay bi muy waa Miftaahu Sahaada di jël nu yóbbeeg siyaar bi di ko jaarale ci seen jiit sëriñ Medoune njaay ak mboolem ñi ñu àndal liggéey bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di bëgg itam ci jataay bi nga xam ni bañ xàmmee ko ba léegi ñu ngi jéem lu mel nii di ci sax am nañ ci mbégte lool di nuyu mbooleem ñiñ fi fekk si muy sëriñ Abdoulahi Diop Bisri ci waxtaanam wu am solo yi nga xam ni eh, man doy na ma sëkk jàpp naa ne jërutoon ma ci yokkaat dara di nuyu bu baax sëriñ Jiili Abdul Xaadir Sàmb di ko siyaar bu baax ak sëriñ Babacar Mbuub ñu ngi leen di siyaar ak Serigne Saliou Samb mi nga xam ni mi ngi fi tamit doon boroom xam-xam bu ràññeeku buñ la digalee dara sàkk sàkku ci yow loo xam ne ñi ko sàkku yeyoo nañ ko yoona lay sant ni la defal leen loolu ñu sàkku ci yow moo waral tey ma ne kon nañ ci barkeelu tuuti rek waaye niñ sonneek coono ak yéen yéeg bëgg-bëgg yi ci des mooy waral xam naa waxtu yi du waxtaan wi du mën a yaatu waaye lu tuuti tuuti nag ku ci bàyyi xel mën na laa amal tuuti njariñ daa mel ne as sabab fil islaam lañ ci waxtaan mooy taxawaayu waxambaane ci lislaam loolu mooy diine waxambaane mooy diine alxuraan daf ne allahu lasi xalaxakum min doxfin su ma jaxala min baxdi doxfin quwata su ma jaxale min baari xuwatin doxfan wa shaybatan yaxluqu maa yashaa kon nit day juddu du man dara bokkoon na ci ñi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam woon yëkkati nañ ci ñoom xalima ni duñ leen bindal dara mooy xale bi juddu te boo demee tuuti dangay man dara foofu nag mooy àddina boo fi yàggaatee tuuti da ngay delluwaat doo mën a dara te mooy màggat kon bu ñuy wax nit mooy diggante bi mane sëñ bi yeete na ci lu baree baree bari bari xam nga yar diine da ko ittiwoo lool diini da ittiwoo yar lool sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na yar mbir la moo xam ne isa daxala fi shay'in shaanahu wa isa xaraja bi shay'in shaanahu dañoo wax ne yar mbir la moo xam ne lépp lu dugg rafetal ko waaye lu mu génn rek loola ñaaw du jagati jafe-jafe yi ñu dal lépp sëñ Ablaye Diop junj na ko tuuti li ko waral du dara lu ñàkk jàng ak ñàkk xam ñàkk jàng ak ñàkk yaru yar ak jàng nag ab jamono la nekkut lu mën a sax daa am diggante boo xam ne ci lañ mën a jàngal nit ki am diggante boo xam ne ci lañ mën a yare nit ki bu jàllee rek loola jàll na leneen ne ko fay wuutu waaye leneen du ci am te sëriñ Saliou daf daan wax naan lu baax ak lu bon daa doon ñaari mbir yoo xam ne dañuy njëkkante ci doomu aadama bi lu ci njëkk rek gën a not la ca des du amati barab ci jëmm jooja moo tax baax bu notee ci nit ki nit ki day mujj baax bone tamit bu notee ci nit ki nit ki day mujj rek bon kon daa war ci nit ku ne nag ñu fexe ba comme waxambaane mooy ki am kàttan mooy ki am doole ñu fexe fexe ba teg ko ci yoon woo xamante ni ci dina dimbali boppam dimbali ay ak njabootam ci anam yi ñëw ci kanam boo xoolee sëñ Touba ta xasida gi mu taalif ñu tudde ko si xaar bokk na ci yi mu mujj taalif ndax gànnaar la ko taalife bokk na ci bokk na ci bokk na ci yiñ war a jiital cim njàng ak donte moom la mujj taalif bokk na ci yim mujj taalif mook saxaadatu tulaab muy téere bi nga xam day wax ci wàllu grammaire gànnaar la leen taalife waaye nag dañ ne bokk na ci ñu war a jiital cim jàng ndax li tax mooy cëslaayi diine yi muy imaan ak islaam ak ihsaan benn bu nekk da ci indi ab dog boo xam ni ku yàlla mu ci moom ak jub bu la leeree du la doy di nga ni naa gën a gëstuwaat lii ba gën caa mën a jariñu jariñu bu baax sëñ bi da ci indi tuuti ab taqdim mooy lim ni lim tàmbalee ni yaa ayyuha sibyaanu la tastaxilu anil huda wa bil xulumi istaxilu dafa wax ni yéen ndaw ñi bu leen soxlawoo lu ak jub jub al hidayatu lañ bëgg nit ki am ko nit liñ bëgg mooy mu jub jub fexe ba ab xolam jub tàbbi ci jub waaye nag dafa mel ni jub mënta am nii ci tëñëx tëñëx yi li koy lay tax nit ki jub mooy day xam day xam ni lii luñ war a def la lii waruñu koo def xam ni lii boo ko defee dinaa la jariñ nangam xam ni lii boo ko bàyyee dina la wàññil nangam saa bu leeree nit ki nit ki dina dox ca la koy jariñ bu ko leeree tamit la koy lor dana ko ba gis nga nit ñi li xam yi ñu xam ci saayir ni mu leen doyee ñëpp gëm gim giñ gëm sëriñ bi amut yamuwaay waaye li la xamal ne ay tappale ngi ci mooy bu dee ci côté bi xibaadaat yi wala ci baatin wala ci baatin bi dañ koy joyal sëriñ bi waaye bu dee ci xaadaat yi nag kenn du ko wakkil sëriñ bi ni ñun ñëpp nangoo ni ku ci dee na nga jëm xam nga ñun ñëpp gëm nañ ni sëriñ bi am na man-man boo xam ne ku ci dee àjjana nga jëm waaye ñun nag kenn ku ci gëm ni comme yàlla bindal nañu suñu wërsëg mën ngaa toog bañ a liggéey am li nga nga war a am kenn kenn kenn digguma ko ci ku nekkañ dangaa gëm ni dëgg la yàlla bindal na la wërsëg nga ni naa ko seeti ci marché bi wala bitim réew wala seeti ko ci nangam kon nag dafa mel ni liy war a teg tegtali gëm sëriñ bi mbaa yaakaar ko mooy nag nga seet lim la digal nga di ko def ba noppi séntu cay njariñam loolu mooy yaakaar loolu tamit mooy wàllu gëm mooy wàllu bëgg tamit moo tax sëriñ bi ne kon xale bi comme waru warti itiwulul ak jub kon na jéem a jànge xam-xam xam-xam nag nekkul ni xam-xam yépp la tànn dañoo ubbil nit ki ni yii xam-xam na ko jàng bu ko jàngee mën naa jariñoo ci àddina bu ko jàngee tamit mën naa jekku côté xiba côté digganteem ak yàlla mën na koo jekku ku jàpp nag ni yaa gën a muus yàlla wala boog yaa gën a xam sëriñ bi ba jàpp ne mën ngaa indi sa gis-gisi bopp yu gën a jub yooyu topp ko tuuti rek boo ko toppee rek surux sëñ Saliou daf daan wax naan nit ki ngay yar mënoo takkoo ak saa su nekk mënoo di takkoo ak moom saa su nekk da nga koy ubbil téere xam-xam yu mu jàng bu ko jàngee ba xam ko ba xam ko da koy leer léegi ni lii bu ko defee nangam dina ko ci fekk bu bàyyee lii dana ko xañ ci nangam da koy leer bu ko leeree nag léegi loola moo fay wuutu sëriñ ba sëriñ bi fi waroon a taxaw naan la defal lii mbaa bul def lii xam-xam ba moo fay wuti nit xam nga saa boo demee ba war a sàcc lii li nga koy bëgg bëgg nga bëgg koo jël lii tax ba doo ko mën a jël mooy xam-xam bi moo naan la lii ngay jël kat comme ëpp na ruqxu dinaar boo wërta dondu dara boo ko jëlee war nañ cee dagg sa loxo boo ko defut fii tamit mën nga nëbbu raw nit ñi ci saayir waaye ëllëg moom doo raw yàlla loolu moo lay ragalloo ba ëllëg doo ko ñemee moo tax foo fekk ko ñu yar jàngal ko ku xamut day jàpp ni dafa ragal mbaa dafa yambare mbaa dafa teey ñun ñi nekk Dakar rek léegi leen nga dajee koo xam ni xamut fi muy taxaw sax waaye day ñëw di la conseiller di la di la jéem a xelal nan lay yënd da ngeen a muusut waaye bu ngeen muusoon génn ngeen ci bu yàgg lañ jàppeek muus nag boo ko toppee yëpp ay wëx mi yàtt la yoo xam ne yow mi xam di nga xam ni kii xamut fi muy taxaw ba di la tànnal yow fa ngay taxaw xanil huda wa bil hulumi staxiloo fastaxiloo bil xifsi alxifsu nag ñaar rekk ci am nit mënoo mënoo mënoo ci liñ lay jàngal mu turu ci muhaamalaat yi wala xibaadaat yi wala sax muy aqida mënoo saa su nekk ngay ubbi téere bi ni naa xooli la ma yàlla digal ci ni ku def nangam am nangam nit da ngay jàng di mokkal ñun ñëpp laata ñuy jàng xam-xam da jàng alxuraan ba mokkal ko ñu door laa jàngal xam-xam bind bu ñu la jox ëllëg da nga ko tari do ñu door laa joxaat ñu door laa joxaat bind saa loola jàllee nag ñu jaat la ko point par point ba xam di nga ci daanu wala déet ñun ñëpp ku ci daanu dañ lay bindal say njuumte ki ci gañe ñu yëkkati téereb xasida jox la ko booba kado lay doon ndax mooy tegtale rek yow munaafasa bi yaa ci man loolu lay tegtale fi mu toll askan muy muy xale yu nekk li ñu leen gëmloo ni lii mooy àddina ñëpp ci la ñuy joy jëm ku la ko dàq yaa ki gën a xam àddina benn borom xam-xam dañuy man liñ ni liñ ni liñ ni mooy bànneex xam naa ne am na waaye ci lu mu nekk loolu la proposé laaj ci lan la nekk xam nga tuxkat yi dëgg dëgg dëgg ñoom buñ tuxut la seen bopp di màndi metti ñi bëgg café dëgg-dëgg bu ñu naanu café la seen bopp di metti yéykatu gura dëgg-dëgg bu yéyut gura la boppam di metti lan lan nag mooy li nga xam ni mooy sa mooy jox nit ki bëgg-bëggam bi mu bëgg nga xam ni dana am dana am dana am bëgg-bëgg bi ko war ci jaamu yàlla di am yëg-yëg ci nasaata bi nga xam ne moom la jëmam soxla loolu lan la xale yi nag bu ñu demee bañ yar leen ci benn mbir ñun de ñun de ñun de métatu bi ñu xam ku mel ni Sëriñ Saliou xam na ni defar nit daa am daa am lum laaj daa am lum laaj ndax nit nit koo gis day day def xewaat mooy weccoo te nit ñi li gën a yomb ci li ñuy weccax ndi mooy lu bon ñu toll ñun ñi nga xam ne dañoo doxaan ñëw daje Dakar ñun ñëpp yomb na lool nit ki jóge ci daara baa mu jóge ci kër gu baax ñëw dakaar bu moytuwut lu fi jikko ju bon dina ko fi jële te du fi wacc jële leen lu baax ñu bari dañuy ñëw jële fi solen wu bon woteen wu bon làkk loo xam ni du doon arab yu leer du doon français yu leer duñ fi jëriñ dara ci xaalis dara ñàkk a way la yar mooy dañ lay teg ci yoon wu jub ba noppi nga way ci ba bu ko ñëpp doon won ginnaaw itam dinga xam ni lii mooy yoon kenn du la ci jëlee alxifsu mooy nit ki li muy jàng na ko mokkal alxifsu tamit mooy nga garder sa cër yi ba cër bu nekk lañ la lañ ko ga nga saxal ko ci moog yar ñoo dëppaloo ndax yar mooy mooy liñ lay defloo nga nga nga nga saxal ci cër bi nga fexe ba cër bi sax ci julli ci loxo bi sax ci bañ a laal laal lu wërta laal bët bi sax ci bañ a xool lu mu wërta xool nopp bi sax ci bañ a déglu lu mu wërta déglu huwa lazi anshaakum wa jahala lakum ash-sham'a wal absara wal afidata xam nga dégg ak gis mooy ñaar yi mën a gën a jeexital ci xolub nit nit boo ko bëggee wëlbati ñaara ci gën a gaaw mooy won ku lu ëpp bëtam mbaa nga mbaa nga mbaa nga mbaa nga jox ku lu ëpp xelam ndax sëñ bi wax na ko hamad suleyman li sharfi han machiyati kay kayma taquuda simaami li rasay li yi xam nga dañuy abdat li tas daada xal bii xus na bëx jëtiha lim njëkk a def rek mooy na ma won taaru boppam ki nga bëgg a wëlbati li ngay njëkk def mooy won ko nit am na lu mu bëgg lu mu bëgg li mu gën a bëgg da koy wane ci anam yi mu gën a jekk moo waral ba léegi nit ñi ëpp sax buñ jëmee ci yenn barab yi ngir bëgg a nit ñi seeni melokaan dañuy soppi doxin man de léegi-léegi dañ lay wooni la fii ngay ñëw nag comme nangam la dañoo bëgg booy ñëw nga sol nangam ñoo lay xel dañu la na nga sol nangam nga ne ko loo ci jublu ñun la comme ñëpp lay seetaan ba ñëpp lay déglu sañoon nangam ngay mel ay lépp loo xam ne day waraloo nit ki ci dégg ak gis sarihatul islamiya day bañ loolu kon nag baax na ci nit ki li nga koy jàngal nga fexe ba mu ba mu ba mu garde ko garde goo xam ne da koy garde ci xelam adapté ko ci cëram tamit ba nga xam ne àdduna lu mu yàgg-yàgg da ko bañ a def maanaam nit ki dañ koy yar ci jàng alxuraan ba bu xëyut jàng alxuraan day yëg ni am na lu manqué bu xëyut jàng xasida day xam ne am na lu lu manqué keroog sëñ Seex dama ko seeti xabbaan alxames ba weesu mu ne ma yéex a ubbi gi nag daa bari lu koy waral loo xam ne ku xamut kër gi mën nga ñu cee xeeb mooy kenn ku nekk am nga dogub jaamu yàlla boo xam ne da nga koo waroo ni bala may gis kenn loolu dinaa ko def muy war a jàng alxuraan wala jàng xasida war li nga war a wér da nga war koo def nit ki dangay am ni lii damaa fas yéene ni dama koy def ndax dañ ni alwirdu alwirdu mooy mbir moo xam ne da koy saxal te mu jóge ci alxuraan wala hadis te nga wutal ko waxtu doon say un muaddat doon loo xam ne dañ koy limité loolu rek moo xam muy xasida koy jàng wala ah nangam booy jàng loolu nag da nga koo war a miin ba nga xam ni boo xëyoon defoo ko day day mel ni yow am na am na am na am na lu wàññeeku ci yow wat tilaawa at tilaawa nag ñaar rek ci am mën ngaa jàng nii ngir sàkku tuyaaba mën ngaa jàng tamit ngir xam liñ liñ la wax war a tilal qur'aana tartiila bu la neexee nga jàng ko ci nga xam ni amul xam-xam mu jàng ko ngir sàkku tuyaaba bu ko nekkee neexee tamit mu jàng ngir xam ngir xam téere bi li ci biir lan la nit tamit loo baax baax baax loo am am xam-xam bu fekkee téeyoo ci di jaxasoog yéen nit ñi boo moytu di nga jël seenu melokaan te doo ko yëg benn boroom xam-xam dani wax sar musahabata la yi fa innahu yoxdi kama yoxdi salimul ajrabu yow mi wér del mooy too ku waga ndax boo wéree toog ku waga waga ja nam lay wàlle doo ko yëg fi mu toll micro ni muy duggee ci nit ba wàll la doo ko yëg da ngay jékki rek yëg ni baax nga wala nga jékki-jékki yëg ni bon nga kuy ànd ak nit noonu ngay mel booy ànd ku baax da ngay jékki-jékki yëg ni baax nga mbaa boog nga jékki-jékki yëg ni bon nga bu noppee nag wala si moo man laa yesaalu xaabida li rab yi ila hudaw xaaida baax na nag ci nit boo jàngoon ba noppi sax nga wut nit koo xam ne xam nga ni li nga am moo la ko ëppale nga jox ko sa bopp ngir mu gën laa jigeel suñu borom bi tabaraka wa taala bu yàggut damay wax ak kilifa gu mag may wax ak moom ni ko man de léegi damaa tàmbalee jaaxle ci ci ci ci ci ci ci ci doxin wi ci doxin wi ndax ñun lépp ñun ñëpp nag léegi-léeg nga dem ba yàgg sa lisaanu xaal dina la jox ni la waaye lii di xew ndax ku ko lijjantiwut mbaa du juri nangam loolu da nga dem ba yàgg sa lisaanu xaal laaj la ko bu boobaa nag bu doon sama classe gi du def lu dul seet ñu ma ci tane ma laaj leen ko ku mel ni sëñ Seex man bu doon mën a de amut may def ci àddina loo xam ne du ci dem waxtaan moom dama ko fekk xaabaan waxtaan ak moom ci yu bari yoo xam ne dama koy gis ci internet bi wala boog ci débat yi may gis yu ñuy proposé yoo xam ne jàpp naa ne mën naa dem ba woyofal gëm-gëmi ñenn ñi mu ne ma nag Abdou dama bëgg nga téye ci yenn yi ni ma am na téere bu ñuy wax xaw ma nan ni ma béye ba nga wut ko di ko gëstu di ko di ci sukkandiku di ci gën a gëstu ngir nga bëgg a xam gën a xam yenn yi ndax nit ñi dañuy am njuumte ciy gis-gis masalan ku mel ni ku mel ni ku mel ni nit kii daloon yoonu murit bu yàggul xaw ma nan saaxo xale bu ndaw la man de man de xawma ñaata at laam waaye wóor na ma ni <laughs> man daal nit nit nit ñi am na ñu xamul ñoo xam ni boo déggee seen i kàddu di nga xam ni xamuñu dara dara dara waaye nag li ñu naan ku bëgg ku bëgg ku bëgg fees fokk nga juyoo nit ñi ci kàddu ndax yonent dëgg la yonent bi sallallahu taala taala moo ne boppu xa boppu téeméeri at bu nekk suñ borom bi dina yónni ab mujaddid waaw mujaddid dafa am ay sart dafa am ay sart yoo xam dañ ni mujaddid kii doon mujaddid fokk sart yi mu melokaana koog moom sëñ tubaa man man ban at la dañ ni dañ ni bopp at bi la mu jat bi ñëw waaye nag sart la ci moom ne jiitu ci at mi ko jiitu ngir waajal at mi mu war a gane àddina at ñu nekk ndax ñun ñun dañoo nekk ci boppu seekal buy bëgg jeex wala daa am seekal buy door a tàmbali kii di woote ni mu di la wóor na yàlla ni boo ko doon pièce benn par benn di ko ci question du ko tontu du ko xam auzu billahi bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah xasbiyallahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu alhamdulillahi ala al imaani summa ala al islaami wal ixsaani wa afdalu salaati wa salaami ala nabi sababil anaami muhammadun al waajibi an yutabaha fi kulli ma ata wa ma xat sara wa alihi wa sahbihi al mutaabiin sunnatuhu bi izni rabbil alamin ma siyru labraaru li naxiimi wa siyru fujaaru li jaxiimi wa faaza man zabba an il islaami bi nayli ridwaanin min assalaami assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yu tedd yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a jot ci nuyoo yi te mooy nuyoob lislaam di leen ziyaar itam di leen ndokkeel di balaw xaq di bale xaq itam nuyoo bi nag ñoo ngi koy teg ci loxol jëwëriñu daara ji muy sëñ Medoune mu jottulil na ko mbooleem waa daara ji yëpp waa miftaaxul saada mu jottulil ñu ko kilifa yi nekk ci gox bi nuyoo boobu it ñoo ngi koy jàllale ci kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoom lañ bokkal jotaay bi sëriñ Saaliwu mi nga xam ni moo doon introduir léegi thème bi di ko nuyu lu bari ak sëñ Jili Abdou Khadr mi nga xam ni incha allah moo war a jël kàddu gi léegi xam naa ni jotaay bi tey seq kook ñaari sàmbin moom xam naa mbir la sëñ Medoune xaw ma loolu nu ngeen ko mën a programmer di jotalit nuyoo sëñ Abdou mi nga xam ni moo daaneel kàddoom léegi ak sëñ Ablaye Diop Bichri ci waxtaan yu am solo yi nga xam ni def nañ ko fi mel na ni nag ginnaaw di nuyu bu baax nag suñu wëllëre yi nga xam ni fekk nañ leen fii sëñ Abdou Lahad Seck sëñ Koso xam naa ni ñu tegal ñu ko ci mbokk yi fi nekk yépp rek ndax xam naa su ma koy lim tey duma fi duma ma fi du fi gaaw a jóg waaye ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci tuuram ak santam di am mbégte ci daje gi ñu daje gi yéen ci barab bii thème bi nag sëñ Saaliwu euh, thème mu actualité la thème bu am solo la jëmmi lislaam une religion de violence peut-on accepter une telle étiquette bu waxee l'islam nag léppi Sëriñ Tuubaa dugg na ci biir loolu ndax moom neena benn tool la yoroon te tool boobu yi lislaam la tudd diini ilal jannati l islaamu wa huwa ala diinan siwaahu wa za nafsun min allaahi léegi kon déjà formulation thème bi rek dafa am solo am solo goog dégg naa ci man ay baat yu am solo yoo xam ni jaroon na taxaw muy lislaam jar naa taxaw muy bunnee lislaam méngale ko mel ni dafa am ñu jàpp ni violence la diine violence la donte bari aana nag it ñoo xam ni comprendre ñu aussi ba tey lan mooy diine li ñuy wax diine bari nañu ko comprendre loolu ndax lu lees mën a nangu la mu doon caq boobu dañ na koy takkal kan moo jàpp ni lislaam diinoy violence la kan moo jàpp loolu mel ni dañoo jëfandikoo benn baat ci aw làkk jëfandikoo beneen baat ci weneen làkk te ñaari baat safaanoo ndax lislaam baatub arab la nu man koo wax ni bu nu ko doon wax ci làkk wi ñu tënkee tem bi manees naa wax xëñ na ni paix bu doon ci anglais nga ni piis ba noppi ñu bëgg koo méngalee ak ni dafay diiney fitna diine violence loolu nag ci ñan la dafa mel ni suñu borom moom àddu woon na ci bu yàgg bu yàgg a yàgg dafa mel ni ñoo ngi nettali ni am na bis sëriñ bi ci ak mujjam benn commandant de cercle boo xam ni mujjoon na di wax lu rafet lool di wax lu baax lool ci sëñ Touba ba mujj na mag ñi ni moom mii de li ko wuutaleeg tubaab yi sax bareetul sëriñ bi ni leen déedéet ndax walantar daaje moo ko weddi walantar daaje rek moo ko weddi ndax mënuñu gërëm mënuñoo gërëm li nga nekk ndare danga wàcc yoon wi ñu jub wi di siraatal mustaqim ànd ak ñoom ci seen ñal yañ nekk walan tarda anka alyahuud walla nasara xataa tataba millatahum nga gisit ni boo seet lool loolu laaye yi wàcc ci loolu bari na bari gokk boo koy lim man ngaa lim lu baree bari wala yusaaluuna yuqaatiluunakum xatta yuraddukum an diinikum in istataw kon naka jekk ñoom seen pas-pas ngi noonu am nañ ñun information bu sûre boo xam ni nag du daa génn ci tey le témoin wala ci le soleil la génn wala laas daa jóge ci ki nga xam ni mooy badihu samawat wal ard muy bataaxal bopp mi ngi ko jëmee ci nit ñi mu jaar fa mu jaar wàcc ci yonent bi waaye nag ci nit ñi dong la jëm na anzalna alayka alkitaaba linnaasi bil haqq ci nit ñi la jëm foofa nag lañu fekk information bu wóor boo ni gaa ñii du ñu denc di leen xeex mukk ba bu ñu ko manee génn leen ci seen diine ji ngeen moxtat génn ci diine lislaam ba jeex ci takk kon nag danañ xam ni ginnaaw mënuñoo fay leerug yàlla ginnaaw xam nañ it ni nit ñi mëneesu leen a delloo ci seen pas-pas la waaj a waxoon julli ci tant que ñoo ngi jàng seen alxuraan ji tant que ñoo ngi bëgg yonent bi mëneesu leen a delloo ginnaaw alayhi salaatu wasalaam waaye suñu fexee ba agir ci ñaar yooyu rek mën nañoo fexe ba delloo leen ginnaaw ci pas-pas kon ñi def loolu xamees na leen ñi nga xam ni ñoom ñoo bëgg gëmloo nit ñi ni leen lislaam diine fitna la nga xam ni dëgg la naam boo delloo ci téere bi danga fekk suñu boroom tudd lu bari lu mel ni baatub xatl rey danga fekk it lu mel ni baatub jihaad lu bari suñu borom tudd ko nit ñi mel ni dañ koy bëgg a galvaudé sax baat bi xëñ na bëgg koo gisee ñoom nañ ko nañu ko bëgg a gise bëgg it obligé nit ñi ci kenn ku ci nekk ñi nga ko war a gisee te fekk na pour faire simple manees naa jàpp rek ni jihaad def effort rek la maanaam nit ki effort yi muy consentir ci mbir mu mën a doon rek ci waxtu woowu mi ngi jihaad mënees cee tànn ñaari dimension muy jihaadul ahsar ak jihaadul akbar jihaad ji nga xam ni xëy na moom la saxaabatu sol defoon ànd ak yonent bi suñu borom digal leen yaa ay ayyuhan nabi jaahidul kuffara wal munaafiqoon ñu ànd ak moom ca loolu dañ doon rayante di bojjante waaye nag defuñu ko woon ci esprit conquête ak esprit imposé kenn diine jooju ndax ci seenu mujj lañ ko tàmbalee def ndax booba rey nañ leen génn nañ leen nangu nañ seen alal ci seenu mujj nga xam ni dafay mel ni kon ci position défensive ak aar ak sàmm ak wattu seen pas-pas ci lañ nekkoon mais defuñu ko ngir. ci esprit conquête ak bëgg mel ni ku yàq kaw suuf ni ko nit ñu bari bëgg a mais ci defendre seen bopp ci lañ taxawal te it bi lislaam demee ba am doole it gis ngeen ni jëluñu kenn bëgg koo fitnaal ci tey da nga gëm mbaa ñu jël sa bakkan donte boo demee ci europe athée point org da nga ca fekk ñu def ci benn ouvrage boo xam ni nee nañ ay woroomi xam a ko defee lañ wax nee nañ gëstu nañ ni l'islam depuis bi ñu ko wootee ba ci 2011 l'islam lim fi def ci ay exaction ñoom ci seeni wax nee nañ mat na 3300 yoo xam ni lenn lu ci nekk ay nangami nit lañu tuur seen deret loolu nag boroom xam-xam yi diine it am nañ devoir ci tontu loolu leeral ko ndax wax jooju du pour xëñ na ñun ñii di dund waaye ñiy xalsata ñëw ëllëg moo koy waral diine jooju nga xam ni nag moom la suñ borom tànn te muy diine fa moom su ma bëggoon a tënk ci fii ñu toll ak programme yi ñu yor rek danaa ci indi ñaar ba ñetti aspect benn bu njëkk bi am na benn genn kilifa ca geneen wet ga ku ni wax Albert Pike ñu bari xam nañ aw turam dégg nañ ko jamonoonte woon na ak Cheikhul Khadim dafa bind benn bataaxal ci fukki fan ci weeru août ci 1871 mi ngi ko bind benn nattangoom boo xam ni moo nekkoon Europe yor fa seen liggéey boobu ñu yor moom tamit ñu koy wax Manzini Italie la dëkk bi mu ko bindee pataaxal bi ni ko suuf si ñu nekk suñ ko bëggee jox saytaane mi ko moom déglu bu baax baat yi muy jëfandikoo suuf si ñu nekk suñ ko bëggee jox saytaane mi ko moom faaw ñu def ñetti révolution ak ñetti guerre mondiale ñetti révolution ak ñetti guerre mondiale révolution yi duma ci dikk ndax day gudd ndax mënuma koo junj bàyyi ko noonu waaye mu ni ko ñaari guerre yu njëkk yi dañuy boole chrétiens yi ñu xeex seen biir en tout cas 1871 la ko wax li may wax ku dem ci téere bu ñuy wax Pound in the Games maanaam des sur sur l'échiquier bu William Guy Keir moom moo ko bind benn officier canadien danga ci fekk li may wax nii mu ni leen bu ñu boolee chrétiens yi ñu xeex seen biir ba rayante ba noppi danañ mujj toll foo xam ne ku ci ne danga naan siiwa mucc bu ko defee nga ni wuy wallooy boo nee wuy wallu fekk na ñu ñun loolu lañu bëggoon ñu ñëw wallu leen imposer leen suñu gis-gis indil leen diine ju yees peq joo xam ni ñoo koy tëral ca ñañ ko tëral te yaakaar naa ni Vatican II moom génnagul ci xelum kenn gis naa fi gaa yuy muuñ yoo xam ne xam nañ li ma wax nga xam ni diine ji tëggaat nañ ko tëggin wu bees ci at yi ñu génn muy Vatican II mu ni leen loolu nag faw ñu créer kawo boobu ci seen biir pour mën leen imposer pas-pas bu bees waaye li ci doy waar mooy teg nañ ci ñaar fukki dugg ci beneen xarnu ba teg ca fukki at ak ñeent guerre mondiale takk Europe ñu tegaat ca ab diir beneen guerre mondiale takk fa xaw ma nag daa tombe xaw ma tombe wul waaye daal ñaari guerre mondiale yi mu wax moom am na fa waaye bu ñetteel bi nag ñun la concerné nee na troisième guerre mondiale bi ci njabootuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ koy taal ñu reyante seen biir ndax bu nu ko taalee fexe ba recruter ci seen biir ñennat ñoo xam ni fekk na dañ leen a infiltrer woon ñu tàmbali indi ay xalaat yu bees ak gis-gis yu bees te loolu ku ne xam na Angleterre joué na ci role bu déterminant gars yi nag dañoo dañoo gaaw ci woote dig dañoo gaaw ci woote dig moo tax li may bëgg a wax dama koy faf yàllu rek mbaa ma leb ko gay dañoo mën a woote dig di hmm? te ma ko yàllu rek ah xam nga am na koo xam ne ñu bari xam nañ ko ab yahut la woote woon na sax ni mooy ki àdduna doon xaar ay jamono woote woon na ko fële ca Izmir ci actuel Turquie tey ji woote woon na ko fi waaye bi mu demee ba buuru Constantinople jàpp ko dane ko ñaar yëfa mën a nekk da ngay tuub dugg ci lislaam wa ilaa ñu rey la rek loo rek a fa mën a nekk mu ni ah man kañ nañ ma bàyyi sama bakkan sowe tuub naa dugg ci lislaam daan ni léegi nag ubbil nañ ma bunt bi nga xam ni moom laa doon xaar ndax dafay mel ni dañ maa teg teg ni ma mënta ñàkk ma dugg ci ne lislaam waaye danaa dugg duggaaleek samay taalibe su ko defee danaa indi diine yi lislaam ju bees joo xam ni la ci ëpp ci violence lañ koy teg ñu bari xam nañ ko tegaatu ca lu yàgg faatu sax waaye ak njabootam tey teg nañ loxo ci réew mu mag a mag ci lislaam gouvernement bu Angleterre ngemb leen yor naa bataaxal yi fii mën naa koo génne waaye damay bañ dig wooma te gars dañoo dañoo kii léegi suñ noppee dama koy jox sëñ Médoune rek su ko defee gaa yi di ko xool ci suuf ndax waxi kii moom daa xaw a doy waar nga xam ni Occident ñoom ñoo mujj jàppale ñooñu ak gaa yi nekk seen ginnaaw ginnaaw dañoo jël am mbalaan it muur ko seen bopp man nañ ko waxe noonu rek ñu ni léegi nañ fexe ba teg seen loxo ci lislaam fa mu fekk baax biñ ko njëkkee def empire ottoman mi ngi doon taxaw gars yi yebal quartier ga nekkoon Misra ñu fekk fa duma leen ñu demaat ab diir l'été loolu c'était en 1744 ci 18e bi nu sampaatee ñaareelu réew ma ñu yebalaat fa quartier ga ñu fekk leen fa duma leen ci lañ daal di gisee ni kon seen programme bi mënta sotti te fexewuñ ba tasaare jullit yi dawlatul osmaan yee ñu tasaare ko moo tax bokk na ci objectif fu première guerre mondiale tasaare dawlatul Usmaniya daf la expliquer kon ni gaa ñi ñu euh, séqal jamono te ñu nar a indi fitna wala boog am pas-pas bu ñu am ñoom dafa am gis-gis bu ñu am te ñun gisuñu ko waaye am nañ yitte joo xam ne ñun amuñu ko waaye am nañ yëg-yëg boo xam ne amuñu ko bërki démb ñoo ngi am suñu mbokk taalibe bu nekk fële Nations Unies mu ni ñoom xaw ma ñoo ngi liggéey ci programme boo xam ni Afrique deux mille soixante ak nangam ñun ñoo ngi ci deux mille seize ñoom ñoo ngi ci Afrique ñun suñuy doom ak suñuy nan lañ ko war a doxalee ñoom ñoo ngi ciy liggéey fi mu ne ñun ñoo ngi liggéey au jour le jour lan lay añee tey ak lu may reere man maa ngi taxaw ci gérer sama journalier ñoom ñoo ngi gérer fii ak fukk téeméeri at ci kanam naka la àdduna si war a doxe kooku mën leen a yem laa yastawi minkum donte contexte yi bokkul waaye du ngeen yem mukk noo def boo bëggee mu nott la boo bañee dana la not boo bëggee mu not la waaye boo bañee dana la nott ndax li yàlla wàcce ci kaw suuf muy loi naturelle yi ñoom dañu ko gën a respecté dañu ko gën a respecté léegi moom moomu ñu fexe ba ta tas dawlatul ya moo tax 1923 bi mu tasee 24 25 26 Médine daanu 1927 Makka daanu 1933 ñu sampat Arabie Saoudite muy troisième fondation Arabie Saoudite du dëgg ñu war a indi nag pas-pas boo xam ni dafay am lu muy indi ci violence mel ni Sénégal l'islam violence képp a ko tax a jóg fekk na lu ñu togg la ñett téeméeri at ca ginnaaw. ngir wane caractère lislaam boo xam ni waxtu nekk tuur deret rek lay lay def te ku gis intrigue yi xew foofu waxuma sax lii le colonel Ralph Peters doon bind ci journal boobu nga xam ni euh, paramétreuse journal bu armée bu États-Unis la en 2006 def na ci article bu xam ni ku ko gis xam nga li xew waaye foofa dafa am lu taxoon rek ñu teg fa ña ñu fa teg waxuma nag nit ña fa dëkk waaye ñañ fa teg ñu yor pouvoir bi laay wax ku ne xam ne leen léegi foofu moom damay junj junj rek parce que gars yi waxuma ku ñu woo dig waaye ay lacrymogène lañ yor yoo xam ni buñ la ko sànnee rek daanaka doo xam foo nekkati fi ne kon looloo ko indi moom muy plan bu ñu tëral boo xam ni l'islam bii lañ war a wane muy benn fànn ci loolu waaye ci biir it danañ fexe ba boole jullit ci ñu xeex seen biir waaye danañ fexe it ba recruter suñuy agent yoo xam ni ay agent yoo xam ni ñoom ñoo leen di recruter moo xam Mossad lay bokk moo xam CIA lay bokk ñu recruter leen ci turu l'islam ñu taxaw ni allahu bar di daal daaneel ay immeuble wala ñuy rendi ay nit ñu ni lii lépp l'islam a ko def te firnde yi ci am léegi bari na 2001 attentat yi amoon États-Unis te ñu wax ni ay jullit a ko def dem naa dem a dem ba ay gëstu yu leer ay boroomi xam-xam yu wér yoo xam ne duñ ay jullit sax ñu indépendant lañu wane nañ ci seen xam-xam ni théorie officielle bi dara amu ci dara du ci dëgg dara mënu ci dëgg am na benn association boo xam ne sii moo dajale aviateurs yi nekk États-Unis aiguilleurs de ciel yi ak ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu te ñu ëpp ca ñoon duñ ay jullit waaye gëstu nañ ba wax ni trajectoire bi nit ki def dal ci kii bi loolu professionnels yi sax mënuñu ko waxuma laa koo xam ni amateur nga publication yi mu ngi ci net bi ku dem danga ko gis nga xam ni waroomi xam-xam ñoo teg weddiwaat loolu parce que programme la bu ñu tëraloon bu yàgg a yàgg yàgg te li ko gën a firndeel Paul O'Neill Paul O'Neill nekkoon na ministre en fait secrétaire au trésor ñoom mooy seen ministre secrétaire yi au trésor bu George Bush bind na benn téere bu ñuy wax le prix de la loyauté wax na ci ni plan yi daaneel loolu ak attaqué Irak ak Afghanistan existé na avant 11 septembre day am te un ministre de la république bu États-Unis moo bind lii ma la wax nii téere bi ku ko amul boo ñëwee mën naa la ko jox le prix de la loyauté la ko tuddee donc dafa démissionné bàyyi ci gouvernement bi bind bind bind téere bi kon nga gis ni loolu ñuy wax lépp fi mu nekk nii daray lislaam nekku ci jamono yële ci ginnaaw am na lu ñu doon wax Charlie Hebdo xaw ma te bu ngeen seetloo tuuti dafa mel ni dañuy boole allahu akbar ak deret yuy tuuru wala boog allahu akbar ak catastrophe buy am ba nga xam ni boo déggatee allahu akbar soo fit moom day dem yow c'est-à-dire l'objectif visé xam nga ñoom dañoo xarañ dañuy jàng doomu aadama jàng la ci fànn yépp wet googu it dañu ndax ñooñu gën a xam nit mais dañuy fexe fexe ba imagine yi génn toujours fu ne allahu akbar rek nit ki gis lu yóbbu aw fitam nga xam ni de manière inconsciente yow da nga repousser yàlla moom yi te doo ko tey loolu lépp ñu ni violence boobu ci ci lislaam la léegi moom Albert Pike moomu mu wax ci beneen bataaxal boo xam ne mi ngi ko bind ci 14 juillet 1889 maanaam fukki at ak juróom-benn yaakaar naa ginnaaw bu njëkk bi mu wax ci nous disons à la foule que nous adorons Dieu mais il s'agit de du je que l'on adore sans, sans superstition la religion devrait être pour nous tous initiée des hauts grades maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne oui Lucifer est Dieu dégg nga li mu wax seen jublu fi ñu bëgg a jëme mu ni oui Lucifer est Dieu et par malheur adduna yi adduna yi mooy ñun ki ñuy wax yàlla allah yëkkut yi di wax il kooku la ñuy wax adduna yi ñoom mu ni wéy adduna yi est Dieu et par malheur adduna yi et aussi Dieu car l'absolu ne peut exister qu'en tant que dualité divine ainsi la doctrine du satanisme est une hérésie mu ni dañuy wax mbooloo mi ni leen ñun gëm nañ yàlla waaye yàlla ji nga xam ni dees koy jaamu te làmbatuwoo ko gëmoo ko rek ci ci loo xamul maanaam yuminu na bil xëy bi ñu ni ñun jaamuñu yàlla jooju yàlla ji ngay jaamu te ay caaxaan nekku ci la ndax nee na jaamu loo xamul luñ la gëm loo ci forcé la ko nee na ay caaxaat la ñu ni ñoom yàlla ji ni jaamu ñoom loolu amu ca nee na diine dafa war a doon ñoom ñi nga xam ni dañ leen a jégal ci am néeg am luñ leen déey am luñ leen wan ñu doon ay initié yoo xam ni seen daraja kawe na nee na dañ leen a nandal ci dëgg-dëgg pas-pasu borom leer gi muy Lucifer waaye buñ ko waxee xam nga kuy kooku mooy seytaane mooy seytaane ki doon wax dañuy créer guerre mondiale bi moo waxaat lii may wax nii ndax lan dañoo bëgg a imposer beneen diine boo xam ni d'ailleurs ñoo ngi ci sax am na benn xalaat boo xam ni waa Arabie Saoudite ñoo ko am buuru Màkka bii fi faatu dox na ci ay jéego muy muy Abdallah première ndaje mi ñu ci njëkk def ñoo ngi ko defee à Jidda ñaareelu ndaje bi ñoo ngi ko defee ca Madrid ñetteel ba ñoo ngi ko defee ca États-Unis mais ndaje moomu lan mooy seen jublu mooy taxawal diine joo xam ni jullit chrétien yahud bouddhiste maanaam ñun ñëpp daal mën nañoo léegi bokk benn diine mooy la religion universelle bi ñuy bëgg créer te loolu ñoo ngi ciy dox ay jéego waaye mënta am tant que nit ñëpp demuñu ba kenn ku ci nekk mënatoo xëy génn sa kër il faut ñu créer violence fépp un peu partout fu ci nekk ñu créer fa la zizanie il faut ñu dem ba kenn ku ci nekk ni siiwa mucc man nan lay def fi nekk nii ba mën a génn dem ci jàkka ji nan lay def ba xëy dem sama place bu boobaa nit ki dana tal leneen lu dul waxati lam doon wax ndax ab coono suul doomam suul ab jarbaatam waxtu wu ne deret nga ciy xuus bu boobaa da nga tal leneen te foofu lañ jaar ba créé lañ créé ci Europe ak église bi loolu lañ bëggal lislaam moo tax ñoom ñoo ñu ñoo am perception ci bëgg ñoo imposer nan ni islaam et moo tax màggal Daaru Muxti ren dañu tànnoon tem boobu islaam et bi ñëwee ba ci yàgg man leen man du ma mujj intervenir ndax man thème bi sax daa leerut sans bopp ndax islaam ak paix moom maanaam wax ji sax dama xamul lu mu doon. no parce que ñun dem nañoo dem finalement sax ba ñun xoqatal nañu ci lool ba fi mu ne dañ naan mais léegi kon nañ xool benn islam ak paix mais selon kii selon kii selon kii islaam et maanaam yow kon am nga problème ci ne man sama diina ji am na problème léegi paix boobu mooy paix kan paix selon la communauté internationale ah bien sûr loolu la di léegi beneen bi ci des mooy benn article boo xam ni John Perkins Mason moom moo ko def mi ngi ko defoon ci 2002 ci benn journalu Australie bu ñu tuddee Australian Humanist daf ci wax ni alors que les croyances religieuses peuvent être considérées comme invraisemblables contrefactuelles et irrationnelles des institutions religieuses immorales peuvent stimuler des conflits dangereux cependant ces défauts ne sont pas les plus graves conséquences des pratiques religieuses le principal impact négatif de la religion sur la communauté mondiale d'aujourd'hui et son coût économique énorme. On estime ce coût à plus de 200 milliards de dollars US supportés par le monde industrialisé. Le coût de la religion n'est pas seulement un gaspillage éhonté du potentiel humain, mais c'est aussi un gaspillage économique aux dépens des plus démunis, alors que ces ressources devraient être utilisées pour améliorer la condition humaine. mu ni mu ngi ko wax ci benn journal boo xam ni ci Australie lay génne ci 2002 mu ni tey jii bi nga xamante ni dem nañ ba xam-xam toll foo xam ni taxawati naan damay gëm benn diine nee na am xel romb na lool doon na tullum xel mën a jàpp doon na loo xam sax dafa mel ni dafa safaanoog fi jamono toll waaye doon na loo xam ni wax dëgg lu kenn mënta layal la nee na am na ay institution yoo xam ni ci turu diine lañuy wax nee na fitna ju am ci kaw suuf ñoo ko fi indi waaye nee na li ñuy indi fitna mel ni dañuy tuur deret mel ni dañuy xoqatal nit ñi nee na loolu am na lu ko gën a yéeme muy lan muy tarde gi diine di tardeel àdduna nee li diine ni muy tardale àdduna li muy li muy tuur ci deret li muy indi fitna ci kaw suuf nee na loolu li muy metti metti tardeel gi mu tardeel àdduna ak nit ñi jëm ci kanam nee na loolu mooy li ci gën a metti ndax lan mu reprendre li buur gi ba waxoon nee na lislaam li waral àdduna dox te buur ba jullit la nee lislaam li waral àdduna tardé lislaam a ko tardel ñu ne ko burge ba li tax mu ni weeru lëmm nga ni da ngay woor pour lan mais boo wooree dootoo mën a efficace nee na boo wooree woor dafay tardel nit kon nit ñi nañ dem liggéeyi te bàyyi koor gi